noo ngi koy bakk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni sunu boroom yàlla subhanahu wa taala moom rek mooy ki ko jagoo nu ngi julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan sunu boroom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم dellu si waat nañ beneen yoon di juróomeelu bind ci sunu bindab tafsir alquran alazim ca suratul isra sunu bind bi weesu moo nekkoon ñeenteelu bind ci suuratul isra tey mooy juróomeelu bind ci tafsiru suuratul isra borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كن لا يويو إن شاء الله موينك سنو بندب تفسير تاي نوغي سنو بروم چنتو يايو اك ماغايام ak kawewaayam ak sori goo xam ni borom bi tabaraka wa taala sori na ko léppi sikk ak i ayib ak i manqué manqué nu ngi seere ni képp ku suñu borom jubal kooku kuy jub lay doon ba faaw te dara mënatu koo dëngalooti waaye ko suñu borom bàyyee ak boppam ba mu sànq kooku day xalku ba faaw kenn du ko mën a gindi yal na borom bi subhanahu wa taala boole ñu ci jaamam yi muy gindi sunu bindab tey mi ngi tàmbalee ci waxi borom bi subhanahu wa taala man kaana yuridu alajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد سنبرام يا الله سبحانه وتعالى ci laaye ji ñuy tàmbalee mi ngi nuy yee di nu tette waaye di xalaatloo ba bu ñuy jël ñu jël lu suñu njariñ nekk waaye bu ñuy yootu it ñu yootu lu baax ci ñun doomu aadama nag borom bi def ko moo ñaale ak yàkkamti yàkkamti googu moo tax lëggéey tey fayu tey da koy faral di gënal lëggéey tey fayu ëllëg waaye ku xam sunu boroom moom duut koo xam ni ay mbiram daar daar la da liggéey léegi mu fay la léegi léeg-léeg dana ko def waaye ci kaw coobare rek lay tege waaye nag lan baaxoo xam sunu boroom di ko def mooy lëggéey tey fayu ëllëg te xam ngeen ni di liggéey di dajale di xaar ëllëg pour ñu fay la loolu xam ngeen ni fii ci àdduna nit ñi dañoo gën a taamu sax ci doxinu àdduna liggéey ba bis bi jeex ñu fay la journée mbaa liggéey ba semaine jeex ñu fay la loolaa leen gën a bàyyi ba weer dee di leen fay waxuma laag di ko dajale ay weer misaal mu mel noonu la nu suñu borom di jox ci àdduna bu ñàkk solo bii nga xam ni ay yoon sunu borom mi ngi nu koy wax ci junjug téere bi nga xam ne ay fan rek nga fiy def bu fan yi jàllee nga jóg fi te soo fi jógee fa nga jëm loo fa yóbbu ci ab yóbbal da ko xeeb waaye loo fa ci ay bàkkaar rek dana rëy ci yow nii ton borom bi tabaraka wa taala mu ni ci laaya ji man kaana képp ku nekk di koo xam ni yuridul aajilata daa bëgg rekk lu teew bay tey mu ñor tey nga góob ko tey jariñoo ko tey képp koo xam ne loolu rek rek moo nekk sa yitte ajjalna lahu fiha ma nasha borom bi mu ni daañ ko gaawtul ci àdduna ñoddil ko lam soxla joxal ko ko waaye liman nurid ñañu soob dong lay doon lu caagi ne soo ko bëggee rek sax yàlla defal la ko bi maanaam koo xam ne yitteem daal mooy àddunaam jag nan lay def ba àddunaam jag loolu rek mooy yitteem su xëyee ca lay xëy bu gontoo ca lay gont borom bi subhanahu wa mu ni képp ku mel nii loola muy jéem a ñoddi day danaa ko dimbali ca ñoddi ga waaye loolu it tekkiwul ni képp koo xam ne dafa jóg àdduna tax koo jóg rek borom bi yombalal ko déedéet li man nurid am na ñoo xam ne fi ne àdduna mooy seen yittey guddi di seen yittey bëccëg te ba léegi taxut nu am ko loolu moo lay wan ni kon mbir mi du bëgg ko rek mooy tax nga am ko waaye nu dang dangi ci àdduna rek mooy tax nga am ko kër kër yi mooy maye kër waaye ña doon kër kër yi du ñëpp am kër borom bi mu nit képp koo xam ni addunay neen moo ko yitteel sunu borom nee na dinaa la yombalal loola de waaye day fekk ma tuddoon ko ci yow ndax borom bi ku nekk tudd na li nga war a am ci àdduna waaye summa buñ jógee ca loole ñu toxoo addina jëm allaaxira jahal naa lagu danañ ko defal ca allaaxira jahannama kër ak jahannam yaslaaha fa lay dëkk fa lañ koy jaar fa lañ koy lakk mazmuman mu nekk ku sibu mu nekk ku bon mu nekk ku ku ñu yedd waaye madxuura mu nekk waa joo xam ni ku torox lay doon ku ñu yedd ku torox mbokk jullit yi àdduna kër gumatul kër la kër gumatul kër la moo tax ñi ko xam ñépp tallaqu dunya wa xaaful fitana fase nañ àdduna tiit fitna yi leen ci nekkal moo tax booy jàng ci siyaru salaf saalih am na ñu imaamu dahabi di tarjamaal ca al mujalladu rabia soo demee ci siyaru alami nubala ca ñeenteelu mujallad ba ca commencement ba dakk net am na ñu fa imaamu zahabi di tarjamaal ñu leen tuddee almajanin mooy ñi ñuy jàppee ay dof xam nga am na bu jëkkoon ñoo xam ni ay mbir yu am solo yu mat a nettali ci seen dund ma nga ca waaye nag nit ñi dañ leen a jàppee woon ay dof comme zahabi moom day tarjamaal képp kuñ jàpp ne lu suñ indee la ngay lañ wax ca yow am njariñ mën na caa juddoo am na ca koo xam ni moom dafa demoon ba ca pegg armeel ya nit ñi dañu jàpp ni wayut amutum xel ñu jàppee ko dof moom dafa dem ba ca pegg armeel ya mu mbaar fa dëkk fa bi ko nit ñi laajee waaw yow lan moo tax dëkkoo fi nit ñi dëkk nga dëkk ci armeel yi mu ni yéen laay laaj lu tax dëkku leen fi ma dëkk ngeen dëkk fa nit ñi dëkk gaa yi jaaxle mu ne leen man de fi ma dëkk damaa xam ni kër ak dëkk gaa ngi mooy armeel yi te fi mu nekk nii su ma deeyee fii ma dëkk dong ngeen may suulaat kon mooy kër ak dëgg gi te yéen fa ngeen dëkk mu ni ku ci faatu ci yéen ku nekk fii lañ lay indi mu ni kon fi ma dëkk mooy kër ak dëkk gi ah kooku de jàpp naa ne bu dee dafa daf bu wax waxi nit a ngoog kon tey mbokk jullit yi àdduna am puukem kese la puuke bu tawee ba nopp ndox mi wal yóbbaale salte baag fuurit maag yépp nga xam ne tuuti ngay toog rek ngelaw li ëf ko mu dañ loolu mooy puuke wala mu póotit bokk borom bi tabaraka wa taala nee na képp koo xam ne adduna yi kese mooy yitteem la ngay yootu bu dee lu sunu borom tuddoon la ci yow yàlla nee danaa la ko jàppandalal ba mu jekku ci yow waaye faatu moo la dee tàbbi sawara te di nga torox di nga nekk nu yedd te xam ngeen mbokk yi loolu dara jëru ko ci adduna te it li gën a yéeme ci mbirum àdduna mooy kooñee ñeewul boppam régal boobu bàyyi leen ko xel àdduna koo ñee ñeewul boppam yàlla xam na ni léeg-léeg di nga génn nga dajeeg nit ca lam sol nga dajeeg nit ca lam war nga dajeeg nit ca fam dëkk nga dajeeg nit ca la la yéem ca moom ba tax nga di ko ñee bu ngeen waxtaanoon moom ci jëmmi boppam ñeewul boppam muy benn ñaareel bi yaa ngeeg loo yëgut loo xam ni moom mu ngi ni seew jot ñetteel bi ma ngaag lu koy métti loo xam ni yow yaa ngi ni seew mucc ca moo tax wolof yi koo kooñee ñeewul boppam kon de sa yeboo nga jéem a ñee sa bopp rek sant sa borom ci la sut borom defal borom bi mu ni wa man arada al axirata képp koo xam ne moom alaxira mooy yitteem waaye wa saayaha mu gëdd ay jéego yu fullawu di dox ay jéego jëm ca alaxira wa huwa muminun fekk dafa gëm yàlla mu ni fa ulaika ñooñee day kaana dana nekk saa yugum seen jéego yooye maskuuran di nekk yu nuy gërëm mbokk yi ñaari aay yi bu ngeen ko seetloo di ngeen xam ne nuroowuñu nu leen suñ borom tëggee man kaana yuridul aajilata ajjal naa lahu fiha ma nashaau liman nurid ak wa man araada al aay ji xoolal ni ko suñu boroom tëggee wa man araada al axirata képp koo xam ne alaaxira mooy yitteem muy benn kon faw nga def ko sa yitte nga xam ne ku xutti woon sa xol bi tey lam cay fekk mooy alaaxira da ñor di feeñ ci say wax di feeñ ci say jëf di feeñ ci say jëflante di feeñ ci say dige lépp sa bëgg nga bëgg alaaxira di ca feeñ muy ben wa saalaha sa'yaha tayit ngay def ci fi al-akhirah gëm al-akhirah ak gënoma gëm yàlla ak xeeti mbir yoy nga xamni ñun dañuy faral di wax ni mbirum xol la yàlla ken gënu ko xam mbiru xol ya waye sun borom mu ni wa saalaha sa'yaha moy ngay jëf ay jëf yu wane ni yow mi gëm nga al-akhirah kon nekete gëm gi nga gëm al-akhirah kooku yow rek la concerné ak sa borom ñun mënaguñ koo xam ndax man nga noo wax lu tub dëgg waaye wa saalaha saayaha mooy firnde bu nuy wan ni diw kat lii mu wax dëggu na ci ndax boo gëmee àllaaxira ba noppi ngay def ay jëf yi war ne yow gëm nga àllaaxira kon loola dugal nga ñu suñu yoon mu ngi ci waaye wa huwa mu'min te fekk mu gëm yàlla ndax xam ngeen ne am na koo xam ni ma nga wax waxi àllaaxira di def ay jëf yuy nuru jëfi ku jëm àllaaxira waaye wa huwa mu'min gëmut yàlla ndax léeg-léeg nga gis ku def dara lu rëy ci nit ñi waaye du rëy fa suñu borom la ko waral mooy ñàkk gëm yàlla ga wa ma manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah yàlla mu nit lu baax lii nga gis ab nit daal di koy def nga xam ne tey bu ko ab julit defoon kenn du xam nu muy toll ci ay tonu yiw yàlla mu ni kii ko def fayuma ko dara dara dara ñu ne lu tax mu ni kafaru billah parce que dafa weddi yàlla caabi ji ubbi buntab ñu nangu say jëf caabeem daa damb moom sunu borom mu ni fa ulaayika ñooñee kaana dana nekk saayukum seen jéego yooyee maskuuran lu yàllay gërëm moom ngeen gis borom bi di wax ni wa kaana saayukum maskuura tey de yéen ñëpp saya boo ngeen xam ni li ngeen doon def man yàlla kontaan naa ci loolu nag mbokk jullit yi xam ngeen nii lu rëy rëy rëy la gis nga waxuma la di nga dugg àjjana waxuma di nga dugg firdawsi waxuma alliyin nga jëm waxuma adan waxuma jannatul naim waxuma jannatul khuldi waxuma jannatul ma'wa dama ni bu la yàlla ne wa kaana saayukum maskura nda jërtul nga lijjanti fan nga jëm yow yow moom sa yaboo nga lemu ba sa xel xol dal sa xel sedd ah nga xam ne yow moom texe nga moom wa kaana saayukum maskura mooy yàlla mu ni kontaan naa ci li ngeen doon def ci àdduna loolu xam nga ni bu la ko yàlla du la ko wax mukk ba nag ngay dugg sawar yàlla na suñu borom boole ñu ca mbooloo mam koy wax amin sunu borom mu ni kon ki nga xamante ni allaaxira mooy yitteem rot na ci xadis yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku jël àdduna def ko sa yitte nee na yàlla dina la sonal jël sag ñàkk teg ko ci sa xar kanam nga xam ni saa boo xëyee dangay gën a ñàkk ak ñàkk ngay gis te it mënoo jot lu dul la yàlla dogal ci yow waaye nee na ku jël allaaxira def ko sa yitte yàlla dina la fajal say aajo ñoddil la say mbir ba la nga waroon di yootu ji mooy ñëw di la wuy si allahu akbar kon farq bu rëy mi ngi noonu ci diggante ku gëm yàlla ni muy doxalee digganteem ak boroomam ak ku gëmul suñu borom ñaari nit a ngi yoo xam ni ci àdduna wala ñeenti nit a ngi nii ci àdduna yoo xam ni am na seeni mbir lu ñu war a jaaxal waaye aay yii ñu toll moo koy firi benn waaye ngi bu gëm yàlla lool waaye yàlla da koo nattu amul dara dara dara ci teraangay àdduna moom daal dafa mel ni daal moom daal musiba da daal dara ci tere teraangay àddina amul benn waay nekk ne gëm yàlla lool yàlla may ko ci alal loo xam ni kenn xamut num toll ñoom ñaar ñiy jaaxal nañ ñi gëm yàlla ab yéefare ngi boo xam ni yàlla jox na ko ci alal loo xam ni kenn xamut num toll ab yéefare nga ne yoo xam ne suñu borom da koo seetaan ba daanaka ci walaakaana yi la bokk mbokk jullit yi ñaar ñii muy jullit beeg yéefar bi te ku ne am na alal ñaar ñii di jullit beeg yéefar bi te ku ne daa ñàkk waaw kon alal moom mandarga la muy wane ne yàlla bëgg na la am déet wala ñàkk moom mandarga la muy wane ne borom daf laa jéppi wala déet du ci benn gisoon ngeen ko ca suratul fajri fa ama al insanu ida mabtalahu rabbu fa akramahu wa naama fa yaqulu rabbi fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahaani kalla mbir mi demewut ni ngeen koy àttee de bari alal tekkiwul ni yàlla daf laa bëgg tekkiwul da laa bañ néewle ko tekkiwul ni yàlla daf laa bëgg daf tekkul daf laa bañ kon waaw mbir mi moom suñ ko bëggoon a xam nu mu demee lu ñuy def xanaa kullan numiddu haulaai wa haulaai min ataai rabbik kullan kenn ku ne ca yéefar am alal kenn ku ne ci jullit ñi am alal kullan képp kenn ci jullit ñi ñàkk ak yéefar yi yàgg kullan kenn ku ne ci ñaari mbooloo yi nu biddu daan ko dotti haulaai ñii wa haulaai ak ñële min ata'i rabbika ci mayi suñ borom yi maanaam mbir yi ajuwut ci gëm nga yàlla do dangay am alal yéefar nga doo ko am déedéet mi ngi aju ci kullan kenn ku ne ci ñaari mbooloo yi numit du danañ ko dottil haulaai moo xam ci mbooloom yéefar ma la bokk wa haulaai moo xam ci mbooloom jullit ña la bokk ñoom ñëpp danañ leen dottil min ata'i rabbika ci séddab sun borom ba ndax kat bu leen fàtte borom bi ba mu bindee wërsëg waxul woon ni ñi ñi ma nangoo topp rek laay wërsëgal waxul woon ni ku topp yàlla di nga am ku topput yàlla doo am waaye dafa jëloon ci turam wow ku am yërmande ki ba ëpp yërmande ñépp mooy kenn ku ci nekk daa bind ci sew sa wërsëg ah yàlla dafa bind seeni wërsëg comme ni mu bindee seeni fan ku sa wërsëg jeex nga dem ku saw fan jeex nga dem ku sa wërsëg nga dem nga toog ku sa wërsëg jeexut nga toog ku saw fan jeexut nga toog repp taxut a dee de jeexalay tax a dee repp taxut dee waaye jeexal mooy taxa dee bu wërsëg wi jeexee te fan wi jeexut wërsëg wa day puqatiwaale fan wa yóbbaale bu fan wi jeexee te wërsëg wi jeexut fan wi day puqati wërsëg wa yóbbaale te loolu leeral naa ko ci ay misaal yu bari ci bind yin doon am fii sunu borom subhanahu wa taala mu ni wa ma kaana déddi nekk ataau rabbika sa séddi borom yi nekkul loo xam ni mahdura daa am lenn lu koy baare ba du yegg fa mu war a yegg borom bi tabaraka wa taala ay mayam kenn mënta mu yegg si xam nga ni moo yëf yi ku ko tegoon ci sama loxo ak sama xel mi ni mu gàttee ak man ni may analyser jàpp ni ku dib yéefar rek di mooy yàlla dama ko war a sip bañ ko ba duma ko jox ci alal ji yaakaar naa ne bu doon doomu aadama lañ ko teg ci loxoom noonu la koy séddee nga xam ne yéefar bu fi bajantoo ko dof doflu rek nga nangu alalam aaya ji nag aaya ju ma ta bàyyi xel la léeg-léeg ndeysaan nga gis nit ñi ku jaaxle li koy jaaxal mooy ba man li ma jaaxal mooy xoolal jullit ñi ni ñu sonnee ak li ñuy defal yàlla te xoolal nit ñi walaakaan ak ni ñu ñàkkee xoolal yéefar yi ni ñu mën a mooy yàlla kenn mosu cee sujjóot ci ñoom te li nekk ci ñoom alal ni mu baree nga ne ko kullan numiddu haulaai wa haulaai min ataai rabbik loolu moom dëgg yàlla du sa problème du sama problème waaye doxilinu sunu borom la subhanahu wa taala xam ngeen ni moos yéen a nga xam ne kàccoor du romb firawna ak xaamaan haamaan ak qaaruun firawna haamaana xaaruna xam ngeen ay kàccoor du leen romb te gis ngeen li leen yàlla mayoon ci xeeti alal ak nguur alal ak nguur gis nga waaye kadaalika boo ñëwee ci jullit ñi xam ngeen da ngay gis ñoo xam suñu borom mayoon na leen alal lool kon alal du nattukaay bi waaye bari la tekkiwul mandargam baax néew la tekkiwul mandargam bon li muy tekki mooy kullan numiddu haulaai wa haulaai min ataai rabbik sunu borom ni undur xoolal rek kayfa faddalna baadahum naka la yàlla defalee ngëneel ñenn ci nit ñi ala baadin ca ña ca des allahu akbar undur yàlla mu ni xoolal xippil say bët xam nga yàlla bu ne la xoolal moom lim la wax mat naa xool de yàlla mu ni undur xoolal kayfa faddalna naka la yàlla gënalante baadugum ñenn ci nit ñi ala baadin ca ña ca des ndeysaan subhanallahi alazim léeg nga gis koo xam ni xel mi dafa neex a neex a neex ba mel ni fit nga gis koo xam ni xel mi dafa naqari naqari ba mel ni mu naxandum mu ne undur xoolal léeg-léeg nga gis waa joo xam dafa bari lee bari lee ba moom lim am ci jëmmi ba moom xamu nga gis koo xam ne dafa ñàkk ba lu mu ndekkee amu ko yàlla mu ne undur xoolal nga gis koo xam ne teen dafa ñuul kukk nga gis koo xam teen ba dafa xees pecc yàlla mu ni undur xoolal nga gis ku njool ca kaw nga gis ku gàtt lool suñu borom mu ni undur xoolal nga gis benn waay boo xamante ni li ko suñu borom may ci ay pexe kéemaan suñu borom la nga gis koo xamante ni daanaka am xarum yar la moo xamante ni lu dul lekk ngooñ xam ko yàlla mu ni undur xoolal subhanallah noonu nga koy toppee ci àdduna nit ñi niñ ëppalantee gis nga mbir yi def defu yàllaa de def defu yàllaa de bunt bu am solo ngi mbokk julit ci bunt pas-pas gis nga soo ko amee da ngay noppalu gis nga su fiq bii bu leeree ci yow ay añaananteeg soxoranteeg lekk yëfi jàmbur ak diwooma ko yóbbeeg diwooma yàqal ak yooyu xeeti gëm-gëm yëpp day dañ ci yow ndax da ngay gëm ni ka doon séddale yëf yi mooy sunu boroom qassama rizqa bi aadalil kayfiyaati walam yansa ahadan kàddu googu laay faral di wax rabbuna yow sunu borom moom sunu borom qassama rizqa moo séddale wërsëg bi aadalil kayfiyaat ci façon bu maandu ba gën a maandu façon yépp ci séddale walam yansa ahadan fàttewut kenn gis nga bu la yàlla joxee lu bari ab nattu la bu la joxee lu tuut ab nattu la kenn ku ci nekk nag nattu bala yàllay nattu ca lañ lay examen pour nga jàll borom bi mu ni undur xoolal rek kayfa faddalna baadahum ala baad nga gis ku jàng koo xam ni li ko suñu borom may ci xam-xam yow da nga yaakaar ni kii àdduna kenn rawu fekk sax am na ku ko raw ndax wa fawqa kulli di ilmin alim nga waa waajoo xam ni moom daanaka nu ñuy sangoo sangu set sax xamu ko xoolal sorente googu nga gis waajoo xam ni taaxi kaw ay étage li mu ci am daanaka boo leen bëggoon a màbb rek danga ci am ay fan wala ay weer nga gis koo xamante nii benn néeg mënu koo tabax yàlla mu ne undur xoolal rek nga gis waajoo xam ne la mu am banque bu soobee yàlla ba fii ak muy dee moom moom du ko mën a lekk moom ak lu mën a yàq mën a yàq yaakaar naa yéen a ngi dégg milliard mooy lan ak milliard boo ci dépensé bis bu nekk nangam ba dund nangami at maanaam yow calcul bi ñu lay wax rek daf lay affoleloo yow léeg-léeg nga dégg dégg dégg naa xam ngeen jamono ji yàgg ji million lañ doon wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne milliard maa ngi dégg nit ñi naan milliar a ngi bëgg a xew milliard la ñuy wax léegi yëf yaa ngi gën a yokk waaye fi mu ne loolu lépp yow bu ñu lay calcul pour nga mën koo lekk ci àdduna jëmmi calcul boobu rek waxuma alal ja de jëmmi calcul bi rek daf lay affoleloo yow nga gis koo xam ne loolu la ko suñu borom jox ci alal waaye am na kenn koo xamante ni mook moom ñoo bokk ndey ak baay wala boog ñoo bokk genn géño wala boog ñoo bokk mennam réew wala ñoo bokk bennam dëkk ëpp ko njàng gënu koo neexum xel gënu ko juddu waaye sunu borom natt ko ba amul dara moom nga xool suñu borom mu ni undur xoolal rek kayfa naa ci wàllu alal ci wàllu xam-xam ci wàllu man-man ci wàllu technologie léeg-léeg nga gis koo xam ni ko yàllay mayee ci wàllu xarala ah kéemtaanu sunu borom la subhanahu wa taala benn waay mi may nettali benn defarkatu camion benn góor gu màggat goo xam ni nee nañ jamonoom bi muy liggéey moom ci pliant bi lay toog rek oto bu ñëw day wax chauffeur bi duggal nga dugg mu ne taalal ma dégg boo taalee rek bu régime bu régime bi waxee rek mu ne ubbi leen barab sàngam fa la paan ba nekk maanaam yow da nga kii day njabar sax fekk njabaru déedéet affaire bi du njabar loolu lu am la yàlla day maye subhanahu moom du ci boole sax ay wax ju bari moom fee lay toog moom daal na oto bi nan ko taal rek moom ba mu riir boo accéléré ba mu riir ne dangay dégg mun la demal bu boulon sàngam moo toj te effectivement moom gisagul oto bi ndax oto bi laalagu ko sax moom te effectivement bu ñu ko ubbee boulon boobu moo toj kadalika ci xeeti machine yi da nga ciy gis koo xam ne xam nga teg technologie bi sax àgg na foo xam ni dangay jël machine dugal ko ci biir machine mu détecté yëf ya loolu du yéeme li yéeme mooy nit ki yorum xelam taxaw xool déglum riir mbaa gis nangam mu ni nangam barab sangam la yàqoo loola mayu suñ borom la am na de yàlla dafa mën a maye de ci wàllu xam-xamu xadiit am na borom yi xam-xam yoo xam ne mu xadditu nii nee nañ dañoo mel ni xadiit bu daif daf leen di xeeñ ku mel ni Cheikh Albani noonu la meloon day mel ni xadiit bi ci boppam dafay xeeñ xet gu lay wan ni bii xadiit dafa daif gis nga ci wàllu calcul mental da ngay gis waa joo xam ne da yaakaar ni kii sum waay affaire bi da mokkaloon doo a ñëw di ko tari loo lu machine di calcul mën na koo natt ci bopp nga gis nit koo xam ne fi ne boo ko doon tegtal fii ba déwén du comprendre li ngay wax nga gis waa joo xam ne lu gën a ruqe ci àdduna boo ko tegtalee benn yoon bu soobee yàlla du laajaat keneen ba keroog bu yegg fa mu jëm nit ñi ni ñu wuute ci alal wuute ko ci ay jëmm wuute ko ci xam-xam wuute ko ci man-man loolu mbokk jurit def suñu borom la ña ña yàlla defal ay may tekkiwul ni ñoom ñoo gën ñañ xay mañ xañ may ya tekkiwul ni gënuñ li muy tekki mooy yàlla moom moo xool ku nekk la nga béritoo mu jox la ko loola nag mooy misaanul adl mooy maandute mooy ki ko xam sunu borom ni waaye de loo ci xamut mooy walal axiratu bu ñu demee ba allaaxira day maa ngi lay seedeel ni walal axiratu allaaxira akbaru darajatin fala maye ye di gën a rëyantee wa akbaru tafdila gën gi tamit fa lay ëppee allahu akbar gis nga mbir yi nii mu demee ci àdduna buñ demee alaxira noonu lay demaate ci ëppalante gi waaye du demee ci façon bi mu amee woon nag bàyyi leen ci xel bu ngeen paree ngeen borom bi tabaraka wa taala mu ni walal axiratu kër ak alaxira day akbaru moo gën a rëy darajaatin ay daraja mooy état li suñu borom doon maye waaye wa akbaru moo gën a rëy tamit tafdilan li nga xamante nii mooy ay gën a lante daraja yi ngën yi may yi yooyu yëpp alaxira la ëppee bi maana nii nga gisee nit ñi ëppalante ci àdduna tolloowuñu même àjjana bu ñu fa duggee noonu la même sawara bu ñu fa duggee noonu la waaye du du même système nag du même système de loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax même système mooy ñi amoon fii ñooy am fee ñi ñàkkoon fii ñooy ñàkk fee déedéet du système boobu de maanaam système mu ëppalante ak sutante ni mu amee ci àdduna noonu la amee allaaxira waaye allaaxira kat système bi dañ koy soppi. mooy ña ëppale fii du sart ñooy ëppale fee ñi ñàkkoon fii du sart ñooy ñàkk fee ëllëg balance ba ñuy peesee ci topp yàlla la tege xam nga lu mu la bëgg a xamal mooy même ña tàbbi biir ajana ci boppam duñu tolloo ay kër am na ñoo xamante ni seeni kër ma nga cëg ca ufu ca fa gën a kawe nga xamante ni soo naan fu xeet rek ca aras suñ borom nga jëm ñi nga xam ne ñoo gëmoon ragal yàlla danañ am téeméeri daraja ca ajana te daraja ju nekk diggante daraja ja ak morom ma toll na ni suuf ak asamaan aw la ilaha illa loolu mbokk yi bari na de waaye léegi imaginel benn waay bu ñi moom ca téeméeri daraja lay am yàlla na suñu borom boole ñu ci allahu akbar <laughs> ay boo ko amee de moom boo sàggantut moom da saalit de léegi nga am ci téeméeri daraja boo nekkee ca téeméereelu daraja ba yaa ngi sutee ki nekk fii ci suuf lu mel ni li diggante asamaan ak suuf soriyonto loola mbokk jullit yi jàpp naa ni lu rëy a rëy la loo xam ni aji gëm yàlla bu ko déggee xel wi mu doon daw jëm ci boroomam dana ko yokk subhanahu wa ñaareel mooy sawara ci boppam ña fay tàbbi sax duñ bokk mbukkal xam ngeen àjjana dara jaat la dara daraja mooy déparé fii jëm kaw sawara nag dara kaat la dara ka mooy tàmbalee fii jëm suuf est-ce que xam nga ni sawara même ña fay tàbbi buñ fa tàbbee am na ñu gën a métti le seeni seen ñëpp gis nga biir sawara da nga fay gis koo xam ni jooyam yu métti yépp nekkul nañ ko génne biir sawara déedéet mooy fi mu nekk da gën a noox nañ ko nuqati tuuti mu téen ah mbokk jullit loolu loolu xoolal ki dem ba moom problème am nekkatut na génn na dem àjjana déedéet moom ay dem àjjana waxatu ko ndax xam ne du fa dem waaye moom problème mooy fi mu nekk ni mu ni mu seeree ni mu xóotee ni mu xatee ni mu mettee nañ ko téenal ba ca kaw moom pour moom jàpp na ni fa ca tond tond sawara sa péex ma fa nekk moom moo moom jàpp na ni moo di xéewal te effectivement nag moo di xéewal ca moom moo tax bu yonent bi naan ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra wattandiku leen sawara bu doonte benn xaritu tàndarma ngay jël sarax ko nit wala may ko nit wala jox ko ko mu dogee ko te fekk bi nga ko koy joxe sa intention sa yéene mooy man dama bëgg a mucc ci sawara rek xam ngeen ni shiqqi tamra tuuti na trop ab tàndarma doom bi dong fajul dara nga xaraat ko ca digg ba genn wàll ga lu mu mën a faj nga jël ko ngir fegoo ko sawara kon jeneen jëf taxut di wax sunu borom mu ni walal axiratu buñ demee ba àllaaxira day akbaru fa gën a rëy darajaatin mooy ay daraja mooy ni sunu borom di mayee wa akbaru moo gën a rëy tamit tafdilan ay gënalante yoo xam ne sunu borom daf koy def nit ñi di fa gënalante yal na borom bi tabaraka wa taala boole ñu ci ñoom ca darajaat yu kawe ya waaye yal nañu yàlla defal ca fadail yooyee sunu borom mu ni laa tajal bul def mukk bul wut mukk bul jàpp mukk ma allahi boolek yàlla ilahan axara jeneen yàlla am na ku mën a rey am na ku mën a dekkal am na ku mën a dundal am na ku ami sañ-sañ am na ku sañ génn saria am na ku gën a foor muhammad te du bu am na ku am na ku yenn xeet yooyu ñuy fas yépp sunu borom mu bu ko def am na kuy wàcce taw bi am na kuy faj feebar yi am na koy faj aajo yi am na koo xam ne àllaaxira moom ay fay yooyu sunu borom ni bu ko def mukk loolu moom bu la dara jaral ci adduna nga def laa tajal ma allahi bul booleeg yàlla ilahan axara jeneen yàlla lenn loo jàng bam leer ci sa bopp ni lii yëfu yàlla bul ko jiiñ doomu aadam lépp lu leer ci yow ni lii mayak ak sun borom la bul ko jiiñ doomu aadam bokk jullit dinaay wax te wala azalu ukarriruha dinaay wax te maa ngi koy fàttali ba tey gis nga li lay wan ni bokkaale yàlla lu garaaw la allaaxira boo fa ñëwee loo ëndaale ci caay-caay lu mu bari bari bari bari bari te bokkaale yàlla bokk ca berul ca ruqubee nga xaar tuuti yaakaar naa ni bu ñuy séddale yërmande moom moom doo ci mucc waaye allaaxira loo fa ëndaale ci aw yiw lu mu bari bari bari bu ca bokkaale bokkee fa ñuy séddale yërmande bul fa taxaw ndax duñ la xool ba tëb yërmande loolu alquran la inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dalika loolu nag war naa tax mbokk jurit yi mbirum tàbbi sawaraak tàbbi àjjana moom nañ ko bàyyi ci loxol suñu borom looloo waral loo man ci lu baax defal te moytu bokkaale looloo war lu nit saay saay saay saay saay saay te daawut bokkaale yàlla jox ko atteb julit buy dund bu faatoo bàyyi koog sunu borom wa huwa ahkamul hakim sunu borom ni bul wutal yàlla morom fa gis nga soo ko defee taquda di nga toog toogaay bu la neexut alaxira de di nga mujj ci mujjantal goo xam ni ah mazmuman da ngay nekk ku ñu sib mazmuman da ngay nekk ku ñu ŋàññi waaye maxzulan nekk ku ñu toroxal koo xamante du am ndimbal fa suñ borom yéen yàlla bi nee na sallallahu alayhi yàlla moo yore ndimbal <coughs> moo yore lor moo tax yonent bi ne képp koo xam ne ak ñàkk daka dal walay jafeñ-jafeñ mu diis ko doomu aadama ngir jàpp ni kooka rek ko mën a faj ah su boobaa day aajoom jooje borom bi subhanahu wa dugg ko fajal waaye su dee ko wàcce ci suñu borom donte jaaral ci loxol doomu aadama nee na tuuti kon yàlla mi nga xam ni moo yére ngëneel dana ko jox ca ngëneelam ya moo xam mu gaaw moo xam mu yeex aaye ji nag mbokk julli di moog mboolem aayaat yi wax ci wàllu bokkaale yàlla day wane ne lii kat war naa tax kenn ku ne ci ñun boo fi jógee nga jéem a gëstu lan mooy bokkaale yàlla lan mooy bokkaale lépp lu ñu la lii boo ko defee bokkaale yàlla la rek moytu ko mooy laa tajaal ma allah ilahan axar soo ko defee dinga nga rëcc di nga torox di yàqu borom bi mu ne wa qada mu daal di dogal nag rabbuka sa borom yàlla wa qada sunu borom daldi di mu ci ay jaamam farataal ci ñun dénkaane xam ngeen baatab qada day tekki dogal di tekki farata di tekki ndénkaane yooyu yëpp da koy tekki gis nga baatab qada fii borom xam-xam yi dañuy wax ni awsa lay tekki sunu borom dafa dénkaane léeg day tiri firi ndénkaane léeg-léeg dogal léeg-léeg farataal léeg waral wa qada rabbuka sa borom yàlla dafa ndénkaane ndénkaaneel farata rabbuka sa borom yàlla allah taabudu bu ñu jaamu illa iyaahu ku dul suñ wa bil walidayni sa ñaari wayjur nag ihsaanan loo man ci rafetal rek xeeb nan loola mbokki jullit yi bu ngeen seetloo rafetal jëme ci say wayjur suñu borom toujours da koy lënkale ak boppam gis ngeen ko nii ci suratul isra gisoon ngeen ko ci suurtu luqmaan gisoon ngeen ko ci yeneeni saar yu bari ca suurtu fusilat saar yi ngeen gis ñu tafsir ko romb ko yépp te borom bi di ca dénkaane ñu rafetal jëme ci suñuy wayjur boo ko seetloo ba ca biir yàlla lay jiital ak cër ba mu am ci ñun mu teg ci wayjur loolu lim lay won mooy wayjur ku foor la ndax làng ku foor lañ ko teg yàlla farataal na ni dafa dogal ni dénkaane ni warlul ci ñun ni allah taabudu bu ñu jaamu illa iyaahu kudul moom kudul yàlla bul ko jaam ndax kooka jaam la comme yow jaamoo ko war wa bil walidayni sa ñaari way jur muy baay ak yaay ihsaanan nga rafetal jëme ci ñoom ihsaan ihsaanan mooy mboolem luy xeetul rafetal rek xeeb nan loola imma yablughanna saa su a indaka fa ñoom ah fa yow alkibara magal ga ahaduhuma kenn ca ñoom aw kilahuma wala ñoom ñaari ñëpp sunu borom mu ni saa yeggee ci magal moom baay saa yeggee ci magal moom yaay saa bu ñu yeggee ci magal ñoom ñaar sunu borom mu ni léegi nag waxuma la defal njekk jëme ci ñoom waaye yokkal njekk gi nga doon def aaya yii de mbokk jullit yi ah war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax rawatina ñi seeni wayjur di dund yàlla nee na dama dénkaani woon faratal àlluk neen ñuy rafetal jëme ci sunuy wayjur loo def ci ay xeeti njekk rekk xeeb nan loola loo leen jëndal loo leen defal foo leen dëkkal yóbbu leen mag yóbbu leen ñu faju ji faj leen buñ feebaree fajal leen seeni aajo jënd leen lu ñuy sol joxal leen seeni bëgg-bëgg yooyu yëpp suñu borom mu ni loo ci def rek xeebu na ndax ihsaan moom ëmb na loolu lépp waaye imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma bu la fi seen magal fekkee nag kenn ca ñoom aw kilaahuma walla ñaar ci ñoom ñaar sunu borom mu ni laxasaayu waatal nag wagasul waat wagasul waat allahu akbar mbokk jullit yi kuy liggéey ci àdduna boo demee bañ la soixante cinq ans nga retraité soo demee ba sa soixante ans mat sa programme yëpp mooy nooy gaaw profité balaa ngay retraité ndax boo xasee retraité rek la nga mënoon dootoo ko mënati mbokk jullit yi képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal ab nit mu wóor la ni kii liggéey bi lee mu jeexkat te su jeexee kat amana man na la caa faylu duuna duun mu jëntal ga da nga cay góorgóorlu loo man way jur yi bu ñu màggatee ku dem àllaaxira ñu dem ku demul àllaaxira ñu dem kon ñoom ña nga buntu àllaaxira toog bi xaar donte yow it yaa nga fa waaye ñoom dañ laa gën a jege sunu borom ni su loola amee yokkaatal saw xel. rafetalaatal say kàddu yokkal say njekk ak di leen nemmeeku ak di sonn ci ñoom ak di leen bàyyi xel ak di faj seen aajo ak di leen wuy ji ak di toppatoo seeni bëgg-bëgg ak di wattu seeni bañ-bañ luñ sàkku ci yow bu dee loo man la nga def ko boo ko mënul demal nga jéem ko luñ la tere bàyyi ko tey jéem di leen defal ay teraanga ci feeñ ak ci lu nëbb sunu borom mu ni bu nu màggatee nag fala taqul lahuma uffin bu leen waxat lu mel ni uff uff moo kàddu yu gàtt yi ngeen xam yépp ñoo bokk yam ci patu uff merde xoowaay wala wiccax loxo wala ci patu xeet yooyu yëpp ndeysaan day dugg ci uf bépp baat bu gàtt bu salte rek day dugg ci uffin mooy nga wax say wayjur kàddu goo xamante ni kàddu gu gàtt la te mbokk yi xam ngeen ni waxuma sax jur waaye kàddu gu gàtt ci boppam dafa mën a blessé xol yow mii rek ki nga yilif bu la waxee benn kàddu gu gàtt rek sa xol bi di waa ji puqatiku sa jur wi nga xamante ni tolloon ngay jamono bu la sàngul woon sàng bu baax sax ngelaw la àddina lii rey la yàlla mu ne kooku falaa taqul lahuma uffin kooku mérito wut kàddu googu kooku xam ne yàgg ngaa gàll ci kawam yàgg nga tuur ndox ci kawam yàgg nga yàq sa yére ci kawam yàgg ngay bitar ñi kuy jooy kenn xamut looy jooy mu jël sa yitte yàgg ngaa sonn yàgg naa sonn ngir yow yàgg naa feebar waaye fekk feebarut yow yaa feebar mu feebar feebarlu sunu borom ni kii kii fayoo ko ak de fayoo naar bi xoromam de xoolal sa bàyyi di dang-dangi suba ngoon ngir yow bu événement jub see du am jàmm ndax da laa bëgg a bégal sa dàll bu daggee mu jënd sa yére bu yàqoo mu jënd sam njàng moo ko fay sa liggéey moo la ko lijjantil ah yàlla mu ni kii mérité wut kàddu gi koy jox de fala taqul lahuma uffin bu leen wax uff de wala tanharhuma bu leen gëdd di wax ak say wayjur mel ni kuy wax say morom laa ilaha illa allah mbokk yi mbaa xam ngeen ne salafu saalih ku ci masaana wax ak sa yaay mbaa sa baay sa kaddu gën a foor sa kaddu yaay mbaa sa baay te fekk tayoo ko sax laa wax day dem ca marse ba jënd ñaari jaam goreel ko jéggaloo ko yàlla ku ci masa wax ak say waxuma gëdd de waxuma arsala de déedéet sa baay di wax ndànk nga yuuxu ca kaw loolu ku ko ci masa def te fekk da juum da ngay dem ca marché ba jënd ñaari jaam goreel ko ngir jéggaloo ko yàlla parce que da ngaa jàpp ne li nga def ëpp na waa kon ñi koy def te tayuñ ko te duñ def loolu ak ñi koy def te tay ko ñoom moom luy seen àtte wala tanharhuma bu leen gëdd wa qul lahuma wa dee leen wax xawlan kariman wax ju tedd ju neex kaddu yi sa yaay gën a bëgg na koy dégg ci yow kàddu yi sa yaay bàyyi gën a bëgg na koy dégg ci yow laaye ji mbokk julli di jàpp naa ni mën nañ cee bañ a guddal lool ndax romb na ay yoon yoon yoon ñu di ko tafsir ca suratu luqman ci suratu fusilat ci suratu saar yi jàll gis ngeen ko def nañ ci ay waxtaan ba tàyyi leeral nañ ci ay misaal ba tàyyi mu des nag kenn ku ci nekk xool yow li nga jot a dégg loo ci jëfe sunu borom mu ne waqul lahuma dee leen wax xawlan kariman wax ju tedd wax ju nooy waxi waxi ku yambare waxi ku yambare koo xam ne daanaka day mel ni rek ci ngay waxal da nga koo ragal sunu borom mu ne waxfid lahuma rësalal janaaxa zulli laafab toroxal sa bopp a min arrahmate fekk yërmandee ko waral aaya jii day sànq ci ngoon bi may xool tafsir bi li lay wan ni alquran alquran du yëfi nit yëfi yàlla saa boo koy gën rek di gën gis ay yëf yëfaan yu bees aaya ji bañ ko dalee jàng ba tey ni mu yàggee waaye sànq day seetlu naa ci benn sew sew bu ma yéem boo xam ne yàgg naa koo romb te mësuma koo lakuma janaha dulli min arrahma wàcceel sa bopp sa garat wàcce ko toroxalal sa bopp waaye minar rahma na ko yërmande waral nag mooy wane ne nit dana toroxal boppam ci kanamu way juram te fekk yërmande waralu ko su booba doom tiyaaba ci misaal bu góor gi nekkoon ab allemand boo xam ñëpp a ko ragal nga toroxal sa bopp ci kanamam ngi ragal ko comme ñëpp doo am tiyaaba yi ko topp way juróom déedéet ndax minar rahma mooy tax nga am tiyaaba su fekkoonte ne dafa am ndombay tànk yoo xamante ni booy déconné rek mën na laa tëj bu ndax commissaire police la am am na nangam nangam nga ragal ko ba di ko topp ngir loola doo am tiyaaba ndax min ar-rahma waralu ko su fekkente ni da ngaa yëg ni boo ko defut nit ñi ni kii moo bon ci baayam doo am tiyaaba ndax min ar-rahma waralu ko waaye da nga koy def avec plaisir parce que min ar-rahma damaa am yërmande ci moom ak gëm ni yàllaa ma ko digal sew sew boobu mbokk jullit ñu bari ci ñun duñ ci bàyyi xel waqfid lahuma wàcceel janaaxa dulli laafak toroxal sa bopp wàcc sa bopp min ar rahmati yërmande na ko waral wa qul rabbi na ngay wax yow sunu borom irhamhuma yàlla na nga leen yërëm kama rabbayaani comme niñ ma yëree may woon yar ma saa yërëm ma nekk ndaw defe naa aay ji tafsir nañ ko ay yoon def nañ ci ay xutba def nañ ci ay waxtaan ala kulli xaal leeral nañ ci mbir yu baree baree bari su ma ci doon tudd juróomi yëpp rek mu nekk ngir ko damay wax ni bi ci jëkk mooy mbokk jullit di salafu saalih de boo jàngee nan doon déggalee seeni wayjur ak nun day sorente nañ lool fu tolloog fukki mbubb ak yaramu neen kenn ngi koo xam ni boo ko masaana fekk ci yaayam dañ naan dangay nga yaakaar daa si buru su ñee lu ko dal ñu ne dara dalul ko moom kat bu xasee ñëw ci yaayam nii lay mel kenn ngi koo xam ni dañ koo dugal kaso mook baayam ci jamonoy sedd baay ji mënta jàppee ci ndox mu sedd mi muy dugal matt di ko taalal gardien bi di ko matt dootul dugati ci kaso bi mu bàyyi bañ julli gée ba nag mu jël ab pot dem ba ci pegg lampe bi xam ngeen làmp bi day am chaleur mu jël pot bi téye ko nii ci pegg làmp bi pour saleur bi nuggal ndox mi noonu la ko téye bu loxo bi toqee mu téye bu loxo bi toqewaatee mu téye ba fajar jot ngir baayam na am ndox mu tàng mu mën a jàppe kenn ngi ca ñoom koo xam ni nee na xalaatuma yéeg ci kaw terrasse boo xam ni bàyyi ngi tëdd ci suuf loolu moom xalaatuma ko moom kenn ngi koo xam ne da daan am meew yëtt ko yaayam yaay ji ni ko lii ngay def yàq la ndax wax naa la su ma xëyee damay woor bul fi indeeti meew mi mu ne ko bu la neexee nga naan ko bu la neexee nga tuur ko waaye dinaa ko andi ndax ñun tastkat yi xam nañ ni meew mi gën a baax ci meew yi mooy mi fanaan ci battab nag wi mbaa battab weenu gëléem gi la gën a baax nag su ma ko rattee moom sama yaay laa koy jox bu ko tuuree sama jaan wàcc na su ko mayee sama jaan wàcc na waaye yow laa koy indil moom xadiisab ñett ña duggoon ca ma gis ngeen ka tiimoon way juram di xaar mu yeewu ngir mu njëkk a lekk ay bokkam lekk ak ak ak ak ak ay misaal yu bari yooyu yëpp mbokk jullit te tuddoon naa ko fi kenn ku nekk ci ñun na ci nattu boppam fan la toll ak yaayam fan la toll ak baayam borom bi tabaraka wa taala mu ni dee leen ñaanal tamit teg ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira yàlla yàlla na nga ma leen yërëm comme ni nga ma yërëmewoon ma nekkee gone sunu borom ni rabbukum seen borom yàlla nag aalamu bi maa fi nufusikum moo gën a xam li ne fi yéen booy yaru yaru lu moo ko xam boo yaroo moo ko xam booy baax baax lu moo ko xam boo baaxee moo ko xam booy ngistal moo ko xam booy ndékkital moo lu moo ko xam boo sérieux de moo ko xam rabbukum aalam bi maa fi nufusikum aaya ji mbokk julit yi aaya ji de huwa aalamu bi maa fi suduril alamin ah huwa aalamu bikum والله اعلم بالشاكر جيت اعلم اعلم يوي سي القران بوكو بولك ربكم اعلم بما في نفوسكم جيت نغا ليلا داغي توغم ياك داغي خلاطات تي اي دال دغ دغ افير بي دوتو مانا ديم دي ربكم سين بروم يالا اعلم مو غنا خم وخول عليم دي خمنا مو غنا خم ساخ نك بما في نفوسكم ميم ياو ساخ لي نتي ياو يالا لاكو غنا خم mu ne mën ngaa foog ni yaa ngi sellal fekk sellaloo mën ngaa foog da ngaa sérieux fekk sérieux woo te fekk yow boo xamoon ni sérieux woo ba léegi soppi nga waaye xamoo ko sax yow waaye yàlla moom moo gën a xam moom in takunu salihina bu dee da ngeen a baax yàlla xam na bu dee baaxu leen yàlla xam na bu dee da ngaa sérieux yàlla xam na boo sérieux wut yàlla xam na boo déggalee say wayjur yàlla xam na boo leen déggalul yàlla xam na boo leen déggalee mina rahma yàlla xam na boo leen déggalee mina la ca des yàlla suñu borom mu ni in takunu salihina bu dee da a baax fa innahu moom suñu borom kaana dafa nekk lil awaabiina ñi nga xam ne ñuy dellu ci suñu borom gafuuran di ku bari njéggal gafuuran di ku bari njéggal lil awaabiin ñi nga xam ni bu déggee lu leen di jariñ rek gaaw dellu ci suñu borom boo noppee ca loola loola mooy lan góorgóorlu nga sa digganteeg sa borom ba pas-pas ba dëgër góorgóorlu sa digganteeg sa borom ba doo ko bokkaale ak yàlla góorgóorlu sa digganteeg say way jur ba daanaka la la ca war def nga ko daanaka yow man naa ni fi mu nekk nii sa caabi àjjana yaa ngi ko yore di luxluxi xam nga caabi sax di nga ko yore nga bës mu dëgër ngay bësaat di xaar mu tijjeeku yëgal ni yow fi mu nekk nii yaa ngi yor sa caabi àjjana di luxluxi sunu baramu ni soo ca paree nag waa aati na nga jox dal qurba jege ñaale yi xaqahu àqam sa doomi bàjjen sa doomi ndijaay mu jox sa cousin sa doomu baay ki nga bokkal genn geño ki nga bokkal genn kër ki ngeen bokk képp ku la gën a jege ci wàllu mbokk rek yàlla mu ne jox ko àqam ba mat mbokk yi ñun fii liñ ci daanu bari nañ de sa mbokk loolu sunna la da gis koo xam ne jàmbaar la ndeysaan di bi sunna lay dundal def nangam nangam yow sunna si ngay dund lii ci la di sa bàjjen sa baay bu ndaw sa ndijaay ak képp ku la jege ci wàllu géño ci deret est-ce que yaa ngi leen di jokk am na ci ñoo xamante ni ay téeméeri téeméer lañ te ñi ngi bokk ak yow deret te mosuñoo lekk sa téeméer ba nga juddoo ba tey loolu xoolaat ko loolu jaaduwut mënoo jox ñëpp waaye am na ñoo mën a jox te joxoo leen am na ñoo xam ni ñi ngi bokk ak yow jege lool te mosoo leen a nemmeeku ci dara ci dara ci dara nag amut loo mën a tudd mosoo leen ci nemmeeku yow loolu sunna la di am na ñoo xam ne ñu ngi am aajo ci yow nga fajal leen ko a même aajo ji ku la gën a jege ci wàllu deret fuuf mi ngi ko am nga yëg ko ba noppi te jéemoo ca dara mu yow loolu ci sunna la bokk di wa aati dal qurba xaqahu aq bi mu am ci yow jox ko ko ñu bari ci ñun ndeysaan mën nañoo jàmbaare ba defee ay jàmbaar lañ waaye yu sew sewaan yi daal buñ ci yegsee dañ ne nga ngamaral mel ni ku yëgul woon lii ci yëf yi la bokk wal miskina ku ñàkk ki jox ko àqam añaanante gi lu waral mu bari parce que dafa am ñu bari ñu am àq ci yow boo ko yëgee def ko soo ko yëgul ñu yëgal la ko def ko te nga jéem ca la nga ca man soxlay jaam yépp moom mënoo koo faj ndax yàlla mi ko mën a faj sax defu ko loolu bàyyi ci xel jaam yi seeni soxla yépp moom mënoo koo faj ndax yàlla mooy ki ko mën a faj ba bari te defu ko la tax mu deemu def ko moo lay wan ni kon mënoo faj ñu aaju yépp yow wabna ak doomi yoon mooy ku tumuranke nekk ci tukki sunu borom ni wala tubaddir tabdira nee na bul nekk ab kat koo xam ni foo ko fekk rek pasar pasar wasar wasar yàlla mu ni déedéet bul def loolu innal mubaddirina yàqkat yi day kaanu dañoo nekk ixwaana shayatini mbokki seytaane wa kaana seytaanu seytaanu dafa nekk li rabbihi kafuran wala kafuran li rabbihi di weddi sunu borom yàlla subhanahu wa taala